te nag ngëm bu amut ci doomu aadama baax fokk nit am lum gëm gëm gi nag bala ngaa mën a gëm sa bopp foog nga gëm sa borom mi la bind waxtu wu nit ki gëmee boromam ngëm googu da koy libéré mu yaakaar yàlla di dimbane ko yàlla di jàpp ci yàlla di xam ne lu am yàlla la li ko yàlla sant mooy ne def lu baax rek su ko defee da ngay mujj nekk benn citoyen bu mat citoyen nekk citoyen universel foo toog da nga yëg ne bala ma sama chef di xool yàlla ngi may xool te yàlla ngi may gis te yàlla dara du nëbb ci moom te danga bàyyi xel bés bi nga xamee ne euh, dara du nëbb ci yàlla subhaanahu wa kon nag ñu jëm ci jàkka jàkka mooy néegab yàlla mooy néegab yàlla bi nga xam ne yàlla nee na في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبغ له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يلا ننيك بيه El Hadji ñoxor tabax ngir jëmmi yàlla yàlla ne ne bëgg naa ñu di ma fi noddal tusubaar takkusaan timis gew fajar bëgg naa sama tur wi ko ndax doomu aadama yi bu ñuy tagg kuñ fonk dañuy yëkkati seen baat ca kaw yàlla ne bëgg naa sama tur wi ma di ko fi dégg ndax kat koo ñuy mën a bàkk ci àdduna yàlla moo gën a yàlla ñu ñu bàkk ko ndax lu la nit mën a defal ci àdduna lu mu rëy rëy rëy rëy rëy li la yàlla defal sax li la nit ki defal matul zéro pour cent ci li la yàlla defal ci ay xiwalam ak yërmandeem mu nekkoon nag tudd leen sama tur am na fi ñoo xam ne danañ sabbal yàlla suba gi ak ngoon gi sabbal yàlla suba ak ngoon gi mooy dañ julli si takkusaan nga xaar julli ku jafe la jullik timis jafe na jullik gewo jafe na waaye itam jullit fajar gën na jafe ndax fa nelaw yi gën a neexee moo tax yonent bi ne man sallal man sallal bardayni daxalal janna képp ku julli ñaari julli yi jafe yii soo dee dem hal janna mu ne nag am na ay góor ak ay jigéen ñoo xam ne duñu jaay ba jaay tax duñu dem ca yàlla

tusubaar dana jot subaar dana jot subaar dana jot borom magasin ne gaa yi arrêté leen njaay mi ak njënd mi ngeen jàpp ba set ñu dem julli ji yaakaar ngeen loolu ña ko man mooy rijaalun góori yàlla ya ña ko man mooy góori yàlla ya keroog bi premier ministre def déclaration sa politique générale foog naa gaa dix heures fa la leen fekk lu loolu la de foog naa tusubaar fa la leen fekk de takkusaan fa la leen fekk de timis fa la leen fekk de geew fa la leen fekk de ndax def nañ ca assemblée ba lu gën a màgg jóg julil yàlla est que gis ngeen leen ñu lever la séance pour julli ji loolu foogul ne war nañ ko dénoncer ku jiite assemblée bi du Moustapha kuy président bi du Macky ña fa nekk ñëpp ñu ëpp ci ñoom ay jullit lañ mënuñoo na maye cinq minutes dem julli ji te lañ fay nas yëpp doogul lu ñu dajale amaguñu ko te yaakaar ko ci yàlla heure julli jot takku takkusaan timis geew te Muhammad ibni Abdillah fuqara bi tàngaan بخربي تاند نيني نك تي ديغ خربي داي خاج صحابه ген والو جي جولي ген والو جي كونتيني خربي صلاح الدين بيمي ليبري قدس داف دان واخ ني صحابه يي فنان دوني جولي دي دي جولي يالا تي غوديغي داف لي نان من ها هنا ياتي النصر في لا ديمبال يالا دي نيوي بو فكي اي صحابه يي نلاو اي اي ميليتير يي نلاو ديغو غودي نافلهون موي لي هنا تاتي الهزيمه bés bu ñu amee defat yéen yéen ñu ko andil en tout cas c'est une proposition en tout cas ñun bés bu ñu yàlla dinaa ko wax mbay ñang comme moo fa euh, xam naa ko ne ko waaw léegi bu ngeen def seen euh, déclaration wala dafa am ci constitution bi bu teree bu ñu demee ba ci biir nit ñi dem julli ji même bu dee constitution bu fekkee daf ko dafa def ben article article boobu nit ñee ko fa def xoolal tusubaar takkusaan timis geewo heure boobu laa xaddara laa ku ci deewoon looy wax

aye bi parce que mook commerçant bi nga xam ne njaayam ak njaay mu jar tax na mënta julli ji yàlla ne góor yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg njaay mi lu mu tar tar tar commerce bi lu mu tar tar tar du tax ñu fàtte yàlla benn jamono du tax ñu fàtte seen diina benn jamono danañ tudd yàlla teg ci taxawal julli yi joxe asaka لا تخني لي كدفنا يخافون يوما تتقلب في القلوب والابصار بس بيغا خاميني بون تاخوي تي كانام يالا قولي دانن تيت بدي دانن تيت با بدي بون مانونا ген دم دو دي نك دي بت ناخ تيتاغي بس بي قولي دانن تيت تيت دي باغا خامني قولي داني تاخاو في في لا قولي تاخاو ناخ تيتاغي اك راغال doo gis kenn ku la manal dara amul yonantu bu lay mënal dara amul waliyu yàlla bu lay mënal dara amul sëriñ bu lay mënal dara amul président bu lay mënal dara amul borom doole bu lay mënal dara ñëpp yem ci kanam yàlla yàlla ne limanil mulk yawma idin limanil mulk ana ku nguur ana président yi ana borom doole yi ana borom alal yi ñoom ñëpp ñu dal di يلنا الملك يوم يذن لله الواحد القهار تيري دق دق نور بوفار كتن دولي دان نين كو بارتاجي اك مان سي ادنا واي تاي خام نين اماتو لين دولي اماتو لين كتن كون نك لب لو ني ديف نانتي وود يالله سبحانه وتعالى جاكا موي بلاص بي گن سي ادنا جاكا لا يونتو بي احب bilaadi ila allahi masajiduha wa abgadul bilaadi ila allahi aswaquha yonent ne palaas yi gën ci palaas ci àdduna palaas yi gën ci palaas yi ci àdduna mooy jàkkaa yàlla yi fépp ba ñu tuddee jàkk tey joral yëpp palaas bi moo fi gën ndax palaas bi kenn du ko doon kër gële mën nañ ko doon waaye fi kenn du ko doon ndax wa anna al lillah jakka yalla moko mom kon nak yalla mom lañ ko fa jaamu mune nak place yi gëna graw ci place yi gëna graw ci place yi moy marché yi ndax marché yi fala nanam di amé marché yi fala ñuy jaayé lu haram waylun lil mutaffifina du dara lu moy marché ya fala ñuy yaqé balance fa ñu yàqe ba soli bi fa ñuy naxantee fa la ñuy defee lu yàlla gërëmut waaye luf sof commerçant bi nga xam ne bàyyi na xel sa yàlla commerçant boobu nag ak ngóoram wala ak njigéenam du mat mukk lu dul lumut ut ut xaalis bu eeru julli jotee mu bàyyi ko fa dem julli yàlla bu eeru jàpp jote mu bàyyi ko fa dem jàpp benn sa benn góor gu mag ci nit yàlla yi danna na wax ne foo mën a nekk ci àdduna bu heure julli jotee bàyyi ko nga dem julli li yàlla subhaanahu wa gis nga benn saxaabaa ngi nii dafa ñëw ne yaa rasulallah sallallahu alayhi wa dama bëgg ànd ak yow aljanna mu ne ko te loolu ci yow mu ne waaw mu ne ko nang ma dimbale ci bëri looy sujootal yàlla julli fokk ñu delloo siwaat ko nit ñi di julli fokk ñu delloo siwaat ko nit ñi di jàpp gis nga suñu suñu daltu gannaaw suñu daltu gannaaw ak réew du dal lu mooy nit ñi dañ julli nit ñi dañ julli ñi fonk julli bariwut ñii julli ni yàlla bëggee ñuy julli bariwut te jaamu yàlla mooy développement source de développement mooy jaamu yàlla buñ bëggee géej gi baax nañ jaamu yàlla buñ bëggee Eh, sunu koom-koom dem ci kanam nañ jaamu yàlla sunu buggee suñu nawet yi di baax nañ jaamu yàlla taw yi buñ buggee muy wàcc te duñu duñu labal nañ di jaamu yàlla ndax kat jaamu yàlla gi daf lay sécurité daf lay sécuriser jox la sécurité bu mat sëkk kon nag maa ngi woo mbokk yëpp di woo sama bopp jumaa ji place bi na def fees ci jamono ju nekk dañ bañ ko def palaas boo xam ne day nekk xulookaay xeexukaay ki ko tabax loolu taxul mu jóg xaccoo képp kuy ut daraja mën nga ko ut fu dul jàkk jàkk du utukaay daraja du utukaay maa mel nii waaye jàkka utukaay yàlla la ak jegeñ yàlla ñaareel bi almasjidu baytu kulli muminin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na jàkkaa mooy néegab képp ku gëm yàlla képp ku gëm yàlla sa néeg mooy jàkk sa néeg mooy jàkk mu ne man gada ila al masjidi aw raaha aadda allahu lahu fi ljannati nuzulan kullama gada aw raaha mu ne képp ku xëy sol sa dàll dem jàkk wala nga gontu sol sa dàll dem jàkk gi nga xadaa ji moo yóbbaale jullik euh, suba bëtu subaa raaxa moo yóbbaale takkusaan timis gewo mu ne képp ku xëy dem ci jàkka wala nga gont dem ca jàkka waxtu woo ko defee rek yàlla pare préparé na la kër ci biir xal janna heure boo xëyee dem jàkk wala nga gont dem jàkka am nga kër ci xal janna yonent bi daal di waxaat ne képp ku tabaxal yàlla foo xam ne picc mën na fa tëdd picc picc mën na fa tëdd yàlla tabaxal na la kër ci aljanna fii ñaata picc moo fi mën a tëdd ñaata ganaar ñoo fi mën a bóof bari na lool loolu nag dama ci déggee man ne ndeke jàkka buñ koy defar même lu waa ji man man man man man na ci ñëpp bokk ndax ñépp ko moom néegu yàlla la sëñ bi def na lii tey képp koo xam ne bokk na ci dëkk bi te man man na jënd basan ki fiy jàngale man nañ ko dimbale ki fi nekk imam man nañ ko dimbale parce que daf fi morgo daf fi yëpp war na mën a nekk incha allahu tabaraka wa taala beneen bi mooy génn gi ngay génn di dem jàkka di julli li yàlla da nekk ci sécurité bu la yàlla de sécurité feeg yaa ngi dem jàkka da ngay am sécurité nekke bon sécurité deug deug deug deug deug deug buñ ko bëggé nit ñi dañuy julli xam nga ku ne xam na ne sénégal at yi bayé ko na ci ay situation yu doy war fi di sin man na wax ne ñom tonton ndjay ñi nga xamne go xay day tak tubayam waye tay biñu démé ba nga xamne kenn manatu la yar xar ci ci ci ci all bi kenn manatu la yar nak ci all bi kenn mënatula yar fas ci àll bi pour pourtant nit ñi juróon ñu baax lañ waaye jikko yàqu nañ te jikko yi yàqu yàqute jikko nu sa jikko yàqoo rek noonu la sa diina yàqu waxtu wu sa diina yàqoo sa jikko yàqu na waxtu wu sa diina yàqoo sa pas-pas yàqu na mënatuñ la dénk loolu lekk mënatuñ la dénk looy def mu baax kon diina ci doomu aadama mooy cosaan diina mooy cosaan ak developpement xoolal ki nga xam ne yëg na dina dugg ci bàmmeel yëg na ne dina tasee yàlla xam tàngooru safara xam métti wa waayu safara kooku du jël mukk loo xam ne xaraam na ci moom moo tax gis nga tey booy jël nit ay CVM ngay xool baax na lool diina terewu ko waaye CV biñ war a njëkk a xool ci nit mooy ay jikkoom ay valeur gis nga loolu sengoor daan na ko def enquête de moralité wax nañ ma sax ku ko jege nee na ma Senghor sax bala la daan fal foog mu invité la nga lekk ak moom seet ni ngay lekkee ndax loolu dafa yitteel lislaam yitteel jikko yitteel réew su ko defee boo bu la invité reer rek yaakaaral ne dana la dana la nommé ministre ndax booba ministre du doon caaxaan portefeuille gouvernemental du doon caaxaan do député du doon caaxaan parce que dañoo amoon rigueur ci liñ doon def tegoon nit ñi ci siraatal mustaqim tey nag ma bi dafa bëri ci réew mi jikkoy yàqu na naanam sàngara fii da ngeen julli boo xam ne day lekk mbaam xux jullit bu dee ci ñoom dagan na yow daganul ci yow nga xam ne lépp lu xaraam tey jullit mu ngi koy def lépp lu yàlla bañ jigi jullit mu ngi koy def jur doom rey mbi caaxaan nekk góor jigéen nekk ay lesbienne lépp loo xam ne mu ngi yàq réew mi di ko delloo gannaaw jikko yi di gën a diig tey réew maa ngi ci nuur ba nga xam ne mano xàmmee Sénégal ak France mano xàmmee Sénégal ak Europe parce que lépp lu fa xew jëlee nañ ko ci ñoom andi ko implanté ko fi di ko aar am ñu ko bëgg a sa am ñu ko bëgg a défendre beneen bi kon julli gi fa mu am solo julli ci mbooloo julli ci jàkka te comme tabax nañ jàkka ji ba mu rafet alhamdulillah dañ bëgg jàkka ji di fees nit ñi di ci julli si waxtu woo jullee ci jàkka am nga ci yoolu yàlla ñaar fukk ak juróom julli ci kër gi julli ci jàkka ji ëppee na ko daraja ñaar fukki yoon ñaar fukki yoon ak juróom la ko ëppee daraja te waxtu woo xamee ne yaa ngi julli ci ci jàkka jéego boo yëkkati yàlla wàccee sa bakkaar jéego boo teg yegg bo yëkkati yalla yéegal sa maqama bo tegee sa tank ci suuf yalla wàccee sa bakkat ba ba ngay ag ci jàkka ji boo toogee ci bir jàkka ji di xaar julli feek sa njàpp tojut feek sa njàpp yaqul dafa melni ki ñu ngi lay notel ay yiwu yalla di la notel ay mbax ba eliman ñew ñu nodd li xaam di lu baax ba ba ngay génn ci jàkka ji kon yoolu julli màgg na yoolu dem jàkka màgg na yonent bi sallallahu alayhi nee na képp koo xam ne génn na dem ci jàkk julli yàlla julli farata payam dana tolloog ku xarmal képp koo xam ne julli na ci jàkka yor yor te dara taxu mu def ko lu mu yëg bëgg yàlla ak sopp yoolam dañ ko tollale koo xam ne dem na omra ji képp koo xam ne mu ngi ci julli gannaaw julli julli góom julli ci jàkka ñëwaat ci jàkka ji julli te dafa fa denn lu yàlla gërëmut kooku mu nga ca garaad yi gën a kawe garaad yi gën a màgg loolu tax yonent bi sallallahu alayhi bi mu agsee Medina rek la créé jàkka am bi muy dugg Medina la créé jàkka jëm njëkk a njëkk a créé julli faak saxaaba yi dañu di julli ci jàkka saxaaba yi di julli ci jàkka jigéen ñi di julli ci jàkka ndaw ñi di julli ci jàkka xale yi di julli ci jàkka bam jàngal ñu sax nan lañ war a defee jàkka mu ne ngën ci sàppe yi góor ñi mooy sàppe bi gën a jege imaam ngën ci sàppe jigéen ñi mooy sàppe bi gën a sori imaam sàppe bi ci digg bi ñu jox ko xalé ndaw yi kon xalé yi dañ dan dem jak jigen ñi di dem jak, ñëpp di dem jak, gis nga mu ñu bëggee réew mi développé fokk nit ñi wat ci yalla gis nga croissance croissance bi ñi wax ba ci gëna reuy ñu am nit ñu jub rek am nit ñu jub am nit ñu nango liggéey am nit ñu bëgg réew mi am nit ñoo xam ne lépp lu ñu def yàlla lañ ciy xool yàlla lañ ciy kon képp koo xam ne taxaw nga ci jàkka gis nga même balekatu jàkka ji ki koy cuuraay ki andi ay basan di lal di lalaat kooku sax yool bi mu am kenn mënta xam nu mu toll am na ci jamono yonent benn jigéen léegi léeg riwaay bi jigéen la lay wax léeg léegi riwaay bi ne benn waay benn góor nga xam ne yitteem yépp moo doon ñëw defar jàkk ci bale defar cuuraay defar ba yonentu xamme ko ci jàkk ji ndeysaan dëkku na ci dëkk bi feebar bu gàtt dal ko jàpp mu dal di génn àdduna gars yi de préprétam rek dal di ko suuli ci guddi gi yonentu xëy xool ay fan gisul waa ji ne ana diw ñu ne ko ah, kooku gaañu na bañ suuli ko ndeysaan mu ne wan leen ma bàmmeelam ñu wan ko bàmmeelam yonentu jullee ko ñaanal ko yàlla loolu la ko may mooy toppatoo jàkk moo tax fii mooy institution bi gën a mag ci àdduna ndax jangale kay xam-xam loxom neysan Naisan barki de fan yi ben way bu xawa melni man fekk ñi ngi tok xam nga nit ñi sénégalais dañu doy war fekk nit ñi tok ci jaka ji ni di waxtaan ci ay l'islam ñëw ne ma dafa haram wax ci jaka dafa haram ah, ah xanaa loolu la dafa haram ah kana lolu bes la neysan xalé yi xalé yi ne benn waaye mooy ki Mansour Ndiaye eh, ne ma imaam débat bi bu ci bokk demal demal nga dugg ci néeg bi rek toog ñu taxaw taxaw ba meegi xam nañ ne li ñuy wax xamuñ ko sax il ne maîtrise pas les xamuñ ko jàkka ëllu sufa ci jàkka yonent bi lañ daan fanaan ëllu sufa nga xam ne ay xale lañ yu bàyyi seen dëkk bàyyi seen réew ñëw gàddaayel si yàlla yonentu dëkk leen ci jàkka ñu ni ci fanaan bu xare jotee ñu dem xare di fa fanaan di fa yendu muy seen néeg nga xam ne même bu ñu jàppaan prisonnier de guerre ci bundu jàkka ji lañ lay yeew nga xam ne bu nit ñi di julli di jàpp nga gis ni yonent bi jàngale saxaaba yi moo lay xemem loolu lislaam ba nga dugg ci lislaam bés boo xamee ne dem nañ ba réew mi yàlla def ñi nga xam ne yàlla saf na leen ñu am ci place jàkka yi foog ñu taxawaat man dama doon propose sax jàkka yi nekk mairie yàlla xam na loolu jàkke yi nekk maire yi nekk ay maire pourquoi pas que li leen nit ñi di ci ay problème facture courant bu yàqu ndox euh, julli tabaski xew-xew yi ordonnance ci imam parce que ni mu la plupart maires yi duñ ko jaxasoo seen i commune duñ ko jaxasoog seen ko jaxasoog seen i commune nakay lay falee commune nga nekk Dakar kan mooy gérer commune bi kan mooy mooy mooy jël situation doomu aadama yi parce que Sénégal yi dañu tam politique boo xam ne booy wóot da ngay jaxasoog nit ñi fu ne nga taxaw boo amee fàtte nit ñi moo tax boo buggaatee mu jafe kon nag jàkka daf daan jouer rôle yu rëy rëy rëy rëy ñi ci bind téere tudde ko dawrul masjid kenn xamuñu téere yi toll di ko bale di ko parfumer nit ñi di teel a julli di julli ci waxtu xale yi ñu may leen ci place jigéen ñu am ci seen place mag ñu am ci seen place élimaan bi yaatu am xam-xam di wax nit ñi lu leen di dimbale mu bañ a nekk xëccoo xam nga bu ñu demee tey ba jàkka yi fi la ñuy sàccee dàll yi nga xam ne réew am na problème jàkka yi fi la ñuy xuloo léeg-léeg ñu am jàkka yoo dañ koy tëj parce que xuloo ya te imaama du dara lu mooy coono du dara lu mooy yëg métti waxoon naa hadis bi léegi ne képp ku tabaxal yàlla néeg yàlla dana tabaxal kër ci biir xal janna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi ne sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabri ba'da mawtihi man allama ilman aw ajra nahran aw xafara bi'ran aw xarasa naxlan aw bana masjidan aw warratha mus'afan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi yonentu ne nag juróom-ñaar a ngi nii képp ku ko def bàyyi ko gannaaw yool ba dañ la koy ñëw fekk la ca sa biir bàmmeel gannaaw boo génnee àdduna ñu déglu loolu képp koo xam ne jàngale nga xam-xam la nga jàngal nit ñi feeg ñu ngi koy jëfandikoo muy la fekk sa bàmmeel képp koo xam ne am na benn dex gu mu yàkkali defar ko ba nit ñi di ca mën a di naan di ca arrosé pour développement nee na kooku bu demee àllaaxira ndox moom fekk mu ngi fi da koy fekk ci bàmmeelam xanaa bon li mooy développement développement mooy xam-xam réew du développé te nit ñi amuñ xam-xam développement mooy ndox réew du développé te ndox amul moo dax bokkoon na ci programme moo Abdoulaye Wade dekkalaat dex yi xaw ma fu ci mujj nag gannaaw gi dekkalaat dex yi ba ñëpp di man di bay bay noor bay nawet nga xam ne dañuy mën a am lu retenir xale yi ci dëkk yi moo gën ñuy dem ndakaar ci agglomération boo xam ne doo am foo dëkk la ngay na conditionné du baax te dara war lu ko lu mooy pauvreté gu métti aigu nga xam ne moo moo gete réew mi boo nekkee ci kaw gi doo mën a am dara bo baye du de li ngay du la doy nga génn motax politique yi mbay mi ñu jox ko investissement bi ñuy wax mbay mi nañ ko jox 60 ci mbay wax waxuma bayantu ndax bay ba nga am fukki dugub bay ba nga bay deug deug deug ba mag ñi daan bay fi ci réew mi ay bari barigo nga daan deug ay ñaar bari barigo ay ay ay ay téméri bari barigo daan na am baykat yu ko am te ko ñoon sax ay marabu kon dañu tu gëna ci bobu domaine gis nga bon hadis bi dex la wax dex go xaar dañ ko defaraat ba nit ñi di ci mëna bay même dex gu am xorom ñu fexé ba désaliser ko xorom si dem te loolu yomb na léegi ci àdduna bi nit ñi di ci bay di ci naan loolu fekk yaa ngi ko def yow mi ko def daf lay fekk piccam yàlla wala nga gasal sa waa dëkk teen léeg-léeg ndeysaan nga gis dëkk boo xam ne dañuy jooy forage bu yàqu dañuy jooy teen bu yàqu te wóor na leen ne ca ba ab milliardaire mu nga fa tëdd milliardaire boobu mënoon a gas teen bi mënoon a gas forage dimbale ko ay mbokkam waaye làmba ja ngay dégg muy joxe xaalisam ndagar wala ja ngay dégg moo joxe xaalisam benn artiste lay jël ne kii ko nangam wala benn mbër yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne yu yàqu la ci réew mi te war nañ ko corriger war nañ ko defaraat wala boo nga jëmbat garab jëmbat garab Abdou Diouf taxawoon na ci waaye système bañ ko doon defee moo baaxul parce que dafa nekkoon rek lekk koy xaalis journée de reboisement maa ngi koy jooy ne bu ñu fi yàlla suturaalut dans vingt ans vingt ans sénégalais dootu lekkati mango dans vingt ans bu ñu yàlla dimbalewut sénégalais dootu lekkati mango gars yi ne ma yaa ngi wax ay di ma ne ko waaw ndax da ngay jël zone de ñaay bi jëlal rek zone bu demee ni Kër masaar ñàkkurab ñàgg dëkk yooyu la newoon ci mango kenn xamul num toll waaye bi ñu bëggee dëkk gor nañ mango yëpp te bi ñu goree mango yi kenn ku nekk waroon nga mën a jëmbat ñaari garabu mango sa biir kër boo demee tey fu demee ni yoonu Tiwaawoon wi wala nga dem ci yoonu puut nu dëkk yi di gën a màggee garab yi ñii ko gën di gor bu ko defee ñu dugg ci beneen désertification boo xam ne xamuñ fu ñu jëm nekk jëmbat garab ci diina ji dafa am solo trop wala boog nga tabax jàkka wala boog nga bind téere bind téere nag tey man naa am yombatul du dara lu mooy rek képp kuy jàng ci dëkk bi nga am ne xam ne kii ku ko dimbale mu dem nga jënal ko téere jënal ko ay fourniture lool lu am solo la waroon nañu boole ci politique bi bépp dëkk boo xam ne am na dara te dëkk fa gérer ay xale ñu seet localiser xale yi gën a neex xel waa dëkk ba di leen récompenser seeni fourniture di mat ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ne day dimbale doomu aadama ci àddunaam ak ci wala boog nga bàyyi doom joo xam ne danga ko yar teg ko ci siraatal mustaqim nga génn àdduna muy lay ñaanal yàlla juróom-ñaar yi ku ko am sa salaire du dagg ci àdduna feek yiyée ngi fi nekk yool ak pay gi ñuy la ko récompenser ci àllaaxira dem jàkka dafay wàcce ay bakkaar njàpp lu tooy dafay yéegal nit ci yàlla bari looy dox dem ci jàkka dafay yéegal doomu ci yàlla dugg ci jàkka julli nga tàkkusaan amuloo programme bu chargé nga toog xaar timis dañ lay jàppee ne yaa ngi ci julli julli nga timis amuloo programme bu garaaw nga toog di xaar gewo dañ lay bindal ay yoon loolu nag góor ñaak jigéen ñàkk ñëpp wax naa ko ci benn jumaa ji ñun ubbi ma keroog bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam duggee samp jàkkaam ji amul benn julli gu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mos a julli loodul gannaawam ay jigéen a fa di julli di topp événement wu yonentu bi di topp li muy jàngale di topp li muy wax ñooña nag ñoo mujj jur gaynde yàlla yi ñooña ñoo mujj jur wali yàlla yi màgg ya ñooña ñoo mujj taxawu diina yàlla ji ba yàlla gërëm leen ba yàlla bëgg leen ba yàlla fonk leen kon loolu lu ama am solo la jàkka bëgg nañ nga bëgg ko ndax ku bëgg jàkka yàlla def lay bëgg ku ko tabaxal mu yóbbu la aljanna ku fay jiite sa jiite baax bu penceem yàlla yàlla jox la daraja ju kawe ba noddukat bi sax yàlla daf koy récompenser pencam yàlla pencam yàlla yàlla nee na ci làmmiñu Muhammad ibni Abdillah bu ñu dekkee sallallahu alayhi wa ñii gën a gudd doq ñi nga xam seen doq day gudd ba yëkkate ko ñëpp di leen seen pencam yàlla mooy noddkat yi ndax ñoom ñooy hôtel hôtel yàlla moo tax Abbas Mahmoud Aqat bi muy bind téere ci Bilal daf ne Bilal daayu sama Bilal mooy ki nga xam ne ñëpp ñu ngay wooteel leneen waaye moom yàlla la ñu wooteel te loolu lu ama am solo la bokk na ci juróom-ñaar ñi nga xam ne yàlla naa leen keral pencam yàlla bokk na ca wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid góor goo xam ne xolam dafa haju ci jàkk nga xam ne bu duggee jàkka buy génn mu ngay jooy ndax génn gi muy génn ci jàkk ji buy génn buy dugg si jàkk mu ngi bëgg ndax dugg gi muy dugg si ci jàkk te képp ku nekk ci dëkk fexeel jàkk ji xam la danga gis ku dëkk ci dëkk jàkk du ko xam na ngay nekkee ci dëkk doo dem jàkk doo julli ji tusubaar doo julli takkusaan ci jàkk doo julli geewoo ci jàkk bëgg nag boo génnee àdduna ñoo di la ci jàkka te jàkka war la seedeel pencam yàlla kon nit ñi toujours dañuy def loo xam ne contradictoire la jàkka nañ fexe dëkk bi yëpp jàkka ji ko jàkka ji mil la ñooñ jàkka ji mil xam la benn góor gu mag gu am fulla di imaam nettali nañ ma benn waay mos na génn àdduna kenn mosu ko gis ci jàkka ji mu ñëw ñu ne ko ah diw dee na mu ne diw ana fuñ ko yóbbu ñu ne ñu ko yóbbu ci jàkka ji dañ lay xaar nga jullee ko mu ñëw ñu teg waa ji mu ne ko ñëw nga foo ñëw nga fu la réere ñëw nga foo bañ ñëw nga fu la réere man de maay imaam waaye mosuma la gis ci jàkka ji waxuma ne doo jullit de waaye man de duma la jullee lu am solo la jàkka yi nit ñi ne leen jàkka yi miin Omar ibn al-Khattab ci jàkka lañ ko rayee radiyallahu anhu imaam Ali ci jàkka lañ ko rayee te ñoo ñoo doon saxaaba yi di amirul muminin li lay xamal ne am nañ problème boo demee même ci dëkk yi naan dëkk diine la yu mag seen kilifa yi duñ dem jàkk loolu loolu lu garaaw la ci réew lu garaaw la ci réew te moo ne day fondateur yi ñi nga xam ne ñoo fondé tariqa yi mag yi ñoom ñëpp dañ naan julli si jàkk di julli si di julli si di julli si di julli si am na ñoo xam ne buñ naan dem di julli ji ci jàkka ñaari taalibe ñooy ñëw lëng leen ñuy ñëw ba fi ñu war a toogee ñu toog jiite wala ñu toog déglu ñu julli ñu jiite leen nga xam ne dafa dem ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal ne bu nekkee ci dëkk su ko ko yàlla mayee buy tukki na ñëw ci jàkka ji julli ñaar ràkk départ bu ñibbisee na ñëw ci jàkka ji julli ñaar ràkk sa ko dugg këram noonu la yonent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yëpp nee nañ sunnaam mooy bu daan tukki day ñëw génn néegam dugg ci jàkka ji julli ñaar rakka war kabar départ bu dugg ñibbisee day ñëw ci jàkka ji julli ñaar rakka sant yàlla dugg biir këram kon nag fokk jàkka yi xam ñu fokk ñu taxaw ci jàkka yi fexe dundalaat jàkka yi dundal ko nag ci xam-xam dundal ko ci njàngale dundal ko ci lépp lu yàlla bëgg lépp luñ cay def mu set lépp luñ cay def mu sell bu ko defee yéene yu sell yooyu jàkka moo doon déeg bi nga xam ne ci la ñuy sang doomu aadama gi nga tey yonent bi sallallahu alayhi wa daf daan digal saxaaba yi kenn ku nekk sa biir kër sax nga am benn parsel boo fa bàyyi pour jàkka nga ne naka naka nga koy déggee ci fiqil islaam yi sa kër am na jàkka te da ko war a bàyyi dem julli ci jàkka ju mag ji ñu ne waaw jàkka ju mag ji julli juróomi lañ fa daan julli ñoom bu ko defee jàkka yi ñu tabax seen biir kër muy jàkka yu ndaw ndawaan yooyu ci la ñuy def seen naafila yi ci la ñuy def xiyaamu layli yi ak yenn tahajjud yi nga xam ne dañ koy def sa kër di dund ndax kër goo xam ne duñ fa jàngal xuraan jàkka fu ñuy jullee amu fa kër googu mooy kër gi gën a ràpp te mooy kër gi seytaane gën a yab kon fokk nit ñi xam seen diina